asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi eh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar eh, di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi xalifatul am li tarixatil muridiya sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di xamle ni mbokk yi dëgmal nañu bis boo xam ni eh, dafa nekk bis bu am solo muy màggalu poroxaan ñu jàpp ko le 10 février bi ñu dëgmal ci noonu ñu fas yéene ànd ak yéen ay plateau yoo xam ne yoo am solo lay doon di ci invité ay gan yoo xam ni seen xam-xam day màcc lool ci waxtaanee ki nga xam ne moom moo di soxna si waaye ak lépp loo xam ni rek luñ ci war a xam la ba tax na tey ñu dalal ki nga xam ni mooy Serigne Mor fas yéene waxtaan ak moom mu wax ñu kan mooy soxna jaara kon thème bi mooy waxtaane kan mooy soxna jaara laata ñuy tàbbi ci waxtaan bi dañuy jox sëñ Mor mu nuyu ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy ba ñoom ñoo ñuy seetaan si jamono ji baadal asbala basmala wa baadal basmala amdala wa baadal amdala awqala wa kun muizan lana min charri jiazadin maa charrin fa min wa charri al ayni yalaaw wa zarri zixri wa zarri lxalqi in ziimu max jinni wa sawaati summi yàllaaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaara di leen balu aq te di leen bal aq ñaana Seex Muntaxal Basiir baram bi dëbb ko kàttan te wéral ko waaye daw li yàlla na yàlla wàccee yërmaande seen kaw di siyaar baax soxna maam jaara mii nga xam ne moo ñu dalal fii di xaaraat kàddu gi incha allah. ñi ngi lay delloo xarit kon xam naa dañuy daal di njëkkante ak wi. daal di dugg ci li nga xam ni moom moo di waxtaan bi kan mooy soxna jaara ci ab tënk. Euh, kan mooy soxna jaara ci tënk di ku ñu miin di ku ñu xam mu bokk ci askan wu baax woo xam ne soo ko toppee ay sërif la ñuy doon muy askanu mbusoobe bàyyi ko fu ñuy wax gollare gollare mi ngi bokk ci fuuta jëmmi fuuta rek histoire la ba ni mu ñëwee jolof gane jamono ci way juróom yu tedd yi maam soxna astawaala sëriñ Mohamed Bousso boo ko toppee muy dem ba doon sëtub Seydina Ali nga xam ne kon loolu wane ne ay sërif lañu te wax nañ ne sëñ Mbàkke Bousso ngir wéral loolu mas na def listixaar di xool ci ñoom fu ñu bokk dafa tëdd guddi mu gis ak buum bu jàpp ci ndiggam rawaasoo def ay bul bul bu nekk ñu binte laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba mu àgg fi xam ne moom mooy aras kon da nga ci dégg la alxuraan waxoon ne wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi walladi xabusa laa yaxruju ilaa nakidan su su teey mooy jëru gàncax gu teey askan woowu mu bokk askan wu ñu xam ci ngoor la ci diine ci lu baax ci aada ba ci ay maamaate ki maamaate ki maam dangay xam ne dëkk boobu ñu bàyyi ko muy fuuta yàgg na ci diine yàgg na ci ngor ndax boo ko waxee xel daa dem ku mel ne imaam Abdul Xaadir Kan ku mel ne Ceerno Suleymaan Baal dëkk la bu am histoire ci askan foofu la bàyyi ko ñooy ay mbokkam waaye nag mu bokk ci askanu Mbusoobe nga xam ne liggéeyam bu rafet moo tax tey foo mën a toll ci àdduna bi rek nga dégg ne moom mooy Mariama Bousso Diarit la ci xataay waxtu rek loolu dana doon dalil kii kiy déglu ngir mu xam ne ci fii ñu wax fi la bàyyi ko nii la bokkee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nekk lu am solo kon soxna jaara nekk koo xam ni dañu ko waajal waajal gi ñu ko waajal tax mu indiw ñu ki nga xam ne moom moo di xaadimu rasul kon bu ñu déggee day mel ne soxna jaara ku bëggoon nañu xam ci fuuta googu mu gënee jamono fi la amalee am njàngam wala. waaw ah, moom jamono fuuta mi ngi gënee jamono fii jolof jolof foofu la gënee jamono gannaaw bi la ñëw fi nga xam moom mooy Mbàkke Bawal moom nag waajuram a ko defal lépp ndax waajuram dafa nekkoon. jàngalekatu alxuraan boo xam ne wax nañ ne boo ko masaana gis mu toog sax dangay foog ne góor la ndax jàllabe yi muy sol foofu la jànge alxuraan ba mokkal ko xay ban man koo tari man koo bind nekk noonu jàng xam-xam ndax suñuy nopp wax nañ ne laataa moo dem kër dalaayil xayraat bu imaam Jisooli soxna Jaara mokkal na ko te dalaayil xayraat ku ne xam na ne leneen la kon da gis ne ci ndawam ci tuut tànkam ci la ma ne loolam lépp loo xam ne mi ngi ko mën a nag ci keppaaru juróom di maam Astawaalo Mbàkke nga xam ne moo ko jàngal yar ko jàngal ko mboolem xam-xam ndax moom dafa yoroon daara di jàngale kon kër juróom fa la xamee mboolem fànn xam-xam yi ba ci wax nañ ne sax Sayxul Xadim bi muy gën a nekk tout tànk suñu nopp nga xam ne xamagul lu war a wax ci saayir maam Mariam bu sa leen daan jox ay dars yoo xam da koy jaare ci lu mel ne kuy cax xale yi di leen wax naan jëmm a ngi nii dafa bew ba fàtte borom subhaanahu wa taala di wax ne maa alimtu min ilahin xayri kooku firawna la ci jublu di wax ne waa Égypte yéen xamewuma leen jeneen yàlla judul man waaye ñoom ñaar bañ tàqalikoo bañ taqaloo baxarul xalsoom moo leen atte muy géej ga muy li alxuraan di wax naan fan falaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim xeeti xista yi daf ko daan jox ak di wax ne gaa yu baax yi niñ daan taxawee di naafi la ba wax nañu sayxul xadim daan taxaw ba fajar jot te xamul li mu war wax ci saayir incha allah eh, ginnaaw bi nga xamee ni dafa jàng xam yu bëree bëri bëggoon nañu xam naka la duggee ci loxo yi ki nga xam ne mooy sëriñ maam moor Mbacke Anta Sali. waaw suñuy nopp dañoo wax ne soxna maam Anta Ndiaye Mbacke ci moom la jaare ndax moo wax sëriñ maam Mor na ko gis naa soxna su sell soo xam ne daal su ñëwoon fii dinañu mën a dimbali. wax na jamono yi maam Mor it jamono neexu woon ci moom soxna Anta Ndiaye moo jaay ay takkaayam foofu ñu war cee mën a dégg lu baree baree baree bari ci ñoom mag ñi niñ ci war a jàngee ba ak dikkam ci kër sëñ Mamour Anta Sali ci foofu la jaar ba muy ñëwit comme askan wi mbokkoon dañoo nekkoon askan wu sell woon xamoon ci diine ak ngor yab nañu soxna jaara xamal ko ka ngay fekk ji ni mel ci alxuraan ni mu doon jàngale kat ndax sëñ Mamour Anta Sali géej géeju xam-xam la te loolu sëriñ Mamar Kan dingiraay bi muy way sëriñ Touba ndax booba sëriñ Touba fukki at ñett laa am ba mu waxee way ba noppi bay xamle kan mooy Serigne Touba dane xësa la Ahmadou Bamba kaana waayil di bahrul ulumi namiril mayril mawrudu mooy doomi géeju xam-xam bi di Serigne Mamour Anta Sali loolu soxna jaara daal di dajale waa Mbuso bi ban ñëw mu ubbi kaamil bi yam ci benn ay alxuraan buy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kii mot li yonente bi mu wax waa Mbuso bi ne leen aaya bii ma yem moo ma jaaxal waaye kon fee ma jëm dinaa fi indi ab yonente kon lu mu yéene woon moo tax sunu borom faye ko seexul xadim ndax innama ahmal bi niyaat wa innama li kulli mri imaana waa kon pas-pas boobu la jox waa mbusoobe looloo ko tere mu waat ne dina fi indi ab yonent waaye bu ne dina fi indi ab yonent kon noonu la na ne mën nañ ne ay nawleem ndax dafa bokkoon ak ñoom jamono naka la doon dundee ak ñooñu mu bokkaloon jamono. ay nawle lañu ndax bi ñu ñëwee suñu ko sañoon a wax dañuy mel ni dañoo def li buur yi daan def xam nga buur yi bu masaan a war a am xare dañuy tëgg gaajo daa di xas xas mooy su fekkente ne damaa war a dee damay dee xam naa dinaa dugal sax loo xam ne bokkut ci waxtaan wi musa buri diggan kodd mi tax kajoor ak bawal fande bi nga xamee ne damel sàmba la labe war naa xeexi gille muy la ba tay di gille waa kajoor dañoo tëgg xas mu woo ñeenti soxnaame muy joor dikke ak joor rella joor maye joor mu neex maa woo ñu àndoon na jang jàlloo mu ne leen Samba Laobé dafa maa teral añub gor ndax daa am ñu war a reer mu ne ana Moussa Boury Digane Codé dañu ne ko dëkkoon mu ne këpp leen reer yi Moussa Boury Digane ngir mu fay loolu Samba Laobé bi mu dajalee ñeenti soxna yi ne leen suba dañoo war a dem gillee ñeenti soxnaa bi dañ na ko yow soo jógee ci xare ba ñëw di ñu ko nett li ñu xam ne matatuñu borom kër mu ne Samba Laobé mu ne faal mu ne ko maag sama fas bi ñuy wax dëkkandoo ji yàgg ñun bu demee gille sun bakkan lan lay faye ñun du fa la ne des maanaam daan fa war a jom goo xam duñ jël si ñu ne ko dëkkandoo ji yàgg mu ne dëkkandoo ji yàgg lu mu mu ne soo ko xamle lee mu giseel la euh, waxtaan bi tey loolu tax koo jóg waaye xas mooy da am pas-pas loo war a def soxna Anta def ko woo ba mu ñëw mu xamal ko ne kër gii ñu nekk dinaa fi am jant ak weer loolu la wax ci tàng-tàng bi wax nañ ne maam Mariama bu sax ci ay teggin bu la nit waxee loolu nga waxaat ko loolu sax doonte waxtaan ngeen jublu ci delloonte kàdd yi mën naa am lu mu jur mu ne ko bu suwaa dinaa la tontu wax na ci suba sa la ne ko dinaa fi am loo xam ne dina mën a ëmb asamaan ak weer te ku ne xam na ne soxna Anta Ndiaye lam amoon lam fa waxoon ne am na fa ndax sëñ Afiya Mbàkke am na ko fa ak ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ku ne gis na seen liggéey niñ taxawee eh, ci kër gi incha allah ku mel ne yaakaar na su ma jiwut sëñ Mamoor Jaara yaakaar naa su ma ñooñu la fa am waaye soxna Jaara lam fa waxoon it am na ko nga gis ñoom lépp dañ koo def rek ci discipline te teewul leen waxoon lépp am nañ ko kon ñoom dañoo xas waaye xas ga yàlla dañ ci dimbali ñu liggéey ko ci biir kër gi kon la dammeele doon def démb ak tey muy bu masaanee dem ñoom dafa mel ne feeñ ni seen ànd boobu. Mhm, kon ñu gis nii soxna jaara léppam da ko tegoon ci ak jaayante mooy xam ci li nga jublu ba pare def lépp loo man ngir réussir loolu ndax ci jamono ji dañuy dugg foofu soxna yi ñu ngi doxee noonu wala parce que dañu gis ni ci jamono ji dafa mel ne xas boobu amatul xas bi nga xam ni moom la xasoon ak ki nga xam ni day nawleem moom mu wax ni bëgg naa am biddiw ak weer kiy wax ni bëgg naa am jant kon faaw ñu dikkaat ci loolu nga waxtaan ci ak soxna yi. waa soxna yi defoon naa ci benn émission bu gudd fan yi la ci sëy yu bari yi ak jafe-jafe yi maanaam Sénégal ni ñuy takke sëy su ñu ko sañoon wax dañ dafa baaxul dafa baaxul nag nekkul ne nañuy xutbaa ci jàkka jaak lañuy ñuy déedéet Bayri Jaal Seck dafa waxoon ne. dee leen fiire di maye tey bañ a forcé di maye fiire di maye mooy dangay gis ne maam jaara mii toog ak diw sàngam mii di fi ñëw sama xel bu ma doxul ñoom ñaar bëggante nañ nga gëstu loolu nag soo gëstoo loolu ba ñoom ñaar ñëpp nga xam ne ñii bëggante nañ nga doog leen a maye waaye dangay gis ne ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër ñu daane kër gi genn geeño moo fi am maa koy takk benn dangay dem wala nga génn kër gi force boobu ñuy force nag moo tax nag lii xew di xewaat ci ginnaaw sëy bi moo tax léegi baree bare bari bari jafe yu baree bari ñëw am ci am yeneen yoo xam ne dollikuwaat na ci mooy loo xam ne mooy colonialiste yi biñ fi jógee dañoo bàyyil yoo xam ne daanaka ñoom booy xool gëmuñu ko bokk na ci liñ tuddee démocratie liberté droit de la l'enfant yooyu bu ñu ko waxtaanee mooy dem nañ ba France gi nga xamee ne sax ñoo ko doon woote dem nañ bay neexal ku am doom ñu fay la réew mi amatut ay xale màggat yi ñu ngi faatu boo doon siifur seen sport yi. ñoom français yi seen équipe nationale yeeg yu mën a doon day gis ne bu nu classé woon par exemple ñu ne euh, bu onze onze départ yi mën nga ne dangay gis ne neuf yëpp wala bu dul lépp sax day gis ne duñ euh, seen seen origine du france français loolu kon gis nañ ko kon loolu lépp da ciy daal di kii nga xam ne nag ci démocratie boog parité boobu nag bari na lu mu yàq ñaareel ba mooy sëy bi sëy yi léegi jafe-jafe yi mooy kii takk soxna moom ci boobu xamul tax muy takk soxna ki war a ta ki war a dem xamul tax da ngay dégg yenn saa kenn la sa te ngaa takk soxna mère bi mère bi sonn na de kon dèjà mooy te ngaa wut mbindaan yow amoo objectif bëggante dem takk nga gis koo xam ne xeer yi ñu koy sànni sa morom yëpp takk nañ takk nañ mu dem moom loolu koy dugal ci soxna nga gis koo xam ne sa moroom yëpp sëy nañ toogaay bi yàgg na moom kur ko kudday dem sëy kon ñi kii dem dafa dem ngir pression sociale maanaam muy soxna yi maanaam ñi mu dëkkal ñoo ko teg pression xale bu góor bi ñu ne ko mère bi màggat na nga xam ne ki fi indi léegi eh, mi daal nga xam ne couple yi amatul benn relation bu bu ci am néew na nga gis soxna soo xam ne day xam borom këram ay BM ay relation ñuy waxtaan mu ciy diisoo déedéet néew na góor ñii itam daal doy na waar xam naa bis bu dana ñëw ñu dugg ci fànn boobu ngir ñu bañ a génn soxna jaara dañ ci mën a leeral lu baree baree bari ci jafe yi ba divorce yi di bari. ñu dégg nga tudd li nga xam ne moom mooy ay loi yoo xam ni euh, français yi dañu koy proposé di ko teg ci kaw soxna yi ñu gis ni day dem ba ñu bari ci soxna yi sax léegi dañuy fàtte. jikko bi nga xam ne soxna jaara amee na ko mooy nangu gi nga xam ne nangu woon na ko parce que dañuy dégg ci ay xissa ak ay waxtaan yu bari ñuy wax ni soxna jaara dafa nangu woon ba mu téewee sàkkit ba bañ ko fa fàttee bëggoon naa nga delsi ci loolu nangu gi nga xam ne soxna jaara nangu woon na ko xam nga ku mel ne soxna jaara faat na waaye góor ñi ku mel ne Mamadou sëñ Mamadou Sali amatut te luwaa yooyu ñu indi it yàq na lu baree bari eh, daa def benn parenthèse boo xam ne bu ndaw dañu wax ku ñax daa am ku ñax colline par ku leen parpale daa jékki-jékki ne borom këram man bàyyi naa di ëmb di am doom ndax femme d'affaires laa borom këram na ko waa léegi nag mu ne ko sama mbindaan mi bon bi ci kër gi moo mi ëmbal sama doom mu ne ko déedéet ci démocratie rek ak liberté bi coow li baree ñëpp ne ko ci droit am la nekk parce que liberté mooy loola neex def da ngay am sañ-sañ léegi ku leen parpale daa dem ba ci hôpital bi xam nga li ñu tuddee banque de sang am na banque ne spermatisure lii ñu baal li tax góor mën a am doom moom lañ fay denc bi mu àggee borom këram ñu génnee ko xool ko amul benn jàngoro ku jigéen gi ñu xool booy di muy nen yi amul benn jàngoro ñoom ñu boole loolu composé ko monteel ko mbindaan mi mbindaan mi ërëm ëmb juróom-ñeenti weer yoo xam ne xamul luy góor ngir tubaab bi wax la fi ñu yegg ñoom ñu ab diir borom këram faatu mu dem ca banque ba ne leen sama borom kër spermaticide bi mu fi bàyyi woon dama bëgg ñun jël ko di ma ko monteel ñu ko yow comme jox ko dëgg borom këram mi ngi ci paxum bàmmeel ñu monteel ko spermaticide bi doom yi waxtu wi ñu judd seen bàyyi nga ci paxum bàmmeel ngir xamal ne ñun fi ñu nekk tubaab bi romb nañ ko bu yàgg yàgg yàgg te ay luwaa rek moom moo waral loolu li ma leen ne wutal téere bu tudd al handasatul wiraasiya du am na boo koy waxtaan du dugg ci loolu dem na sax ba xanaa ñiy chiffre sport benn euh, footballeur bu mag boo xam ne doom yi am yëpp yaakaar naa gars yi war nañ xam loolu am na ñaari doom yoo xam ne amut ak euh, seen yaay ay rapport loolu kon am na kon loi yooyu ak yooyu dafa indi lu baree baree baree baree baree baree baree ak yi ñuy siraan muy scénario yi daw ci télé yooyu dafa indi lu bi Mame Mariama Bousso nangu gi foo ko takk daf ko weesu ndax bëgg gi mu bëggoon sëñ Mamoor wax nañ ne sax ci Mamoor ma sànn génn Mame Mariama Bousso su ko gisee day sëgg ba mu romb ko jàll moo tax Cheikh Mahmoudul Bachir def na ci benn way wu gàtt di wax ne kaana sayyidatina Maryama saalihan la wax xafifatan diiniyan nee na ku baax la woon ku woyof la woon ku am diine la woon am beneen waykat boo xam ne sax yëmul ci lool waaye yim boole woon moo jafe mooy bu guddee bu bëccëgee toole day dem ci toole di taxan di liggéey te na koy booleeg woor waaye neen su guddi jotee day taxaw di naafil la xiyaamu layli kon moom ban waxtu la woon la dallu te maam bu sam ñun moo na xamal ñun nit ku ñuul nañu gudd fan amul sens ci lañ ko xamee da ngay day dund téeméeri at waaye moom marqué wul jamonoom maam buñ ko denc rek fàtte nañ ko amul lenn buñ koy denc di ko fàtte moom ñun la 33 ans la dund fanweeri at ñett te ba léegi histoire am koy kii kon ci lañ xamee ne gudd fan baaxut maanaam fan du gudd jëf mooy tax nit ki du faatu. ndax maam Mariama Bousso moom ba àddunay tukki yàlla de wal buftu bi chaque jour day mel na mi ngi waat jamono te ci fanweeri at ak ñett bu doon ci jamono jii fii jamono tool am njàngam wërta pare tey fekkoon da nga war a jàng xam-xam jàng alxuraan ba ko jàng xam-xam def ay majalis war a jàng français war a dem ba war am yenn di diplôme yi ngay kii pour ñu euh, société bi fi ni mu tëddoo ngir nga mën a tekki dara day gis ne kon am njàngam ci jamono ji ci pare ci pare lay nekk wala mi ngi université dangay gis ñu am lëppal loolu ba pare seen jàng soo tegut ndax jàng daanaka sax du jeex kon yooyu yëpp farlu moo ko moyen bëgg gi it foo ko takk wees ko ndax kersa gi mu nekk woon ci kër sëñ Mamour Anta ak ni mu nekkee woon donc ak ni mu ko doon tarbiyoo di ko jaamu loolu jamono ji maanaam jafe na ci jamono ji nga gis jigéen gu mën a doxe noonu ak borom këram. Mhm. loolu nekk loo xam ne si loo am solo la waaye tamit lu jar a siiwal la mooy nekkin gi nga xam ni nekkee woon na ko ak sëñ Mamour Anta Sall loolu moom faaw ñu ñu yaatal ci bu baax baax. ndax ñun ñi nga xam ne dañuy ay soxna tamit di bëgg di roy ki soxna jaara day baax lool ñu xam ak ni mu nekkee woon ak suñ Maam Mor Anta parce que dañuy wax ni jigéen lépp lu muy am ci ak njabootam ëllëg rek ci ab borom këram ci la koy liggéeyee moo tax ñu ñu bëgg woon xam ne nekki ni mu nekkee woon ak moom. waaw xam nga soxna jaara ci jamono jii bu ñëwaatoon jamono maanaam day wut aw yat aw yat bu mag dana ko wut ndax da ngay gis koo xam ne xam-xamam day màcc ci defar bopp moom defar bopp lay màcc jigéen gu ñëw mu defar la. bu demee ba am diplôme yi mu soxla day ubbi benn salon tudde ko salon maam jaara busa wala xale yi busa ubbi mel na kon bu fekkee yow da ngaa ñëw te xaw koy maam jaara day mel ne moom moo créé lii xam-xam dafa màccoon ci defar bopp moom moo génnee ñi te yonente bi waxoon na law anna laa wal waasilata wal mustawsilata suñu borom rëbb na kii ñëw ne kaay yokkal ma ak kii wat na ñëwal ma yokkal la sëñ Soxay bu Mbàkke ne ka toog di seetaan sax bu sa war la jëm ah, moom daa xaw a tar loolu loolu la ci teg léegi moo xam ne jaar léegi yooyu yëpp yi ñu koy askan ak di ko moom moo tax kon nin koy royee ak nin koy bëggee dafa xaw a jafe donte nag bëgg yàlla moo koy nattoo nit te almar uma man ahab waaye ñu koy bëgg a ko roy daal bu mënoonoo xoolaat seen bopp dina ci dina ci baax aw nekkinam ci kër sëñ Mamoon Sëli dafa xawoon a métti xaw a jafe ndax soxna jaara fi ne ñu bari dañuy dem poroxaan sonn fa lool xamuñu soxna jaara poroxaan la lam fa nekk bariwut poroxaan poroxaan li ko yëpp poroxaan mooy Euh, tafsir Maba ba la bataille de Paoskoto muy xare bi nga xam ne capitaine Canard ak Pinet-Laprade ñoo ko dirigé woon ngir xeex ak sëriñ si dafa fekk lu jiitu bataille yi Loora tubaab bi dafa utiliser kanu muy général Faidherbe boobu ñu leen gañee ngol ngool rey ci tubaab bi 500 personnes juróomi rey ci rey ci Kajoor juróomi téeméeri nit léegi Lat Joor dem làqatu ji fi nga xam si moom mooy eh, porax ñoora eh, sëriñ si boobu ñoom ñëpp ñi ngi ñi ngi ñoora léegi nag Euh, tubaab bi ngir ñu éliminer Lat Joor rey sëriñ si ñu takk benn xare boo xam ne 6000 soldats ak mil volontaires capitaine Canard ak Pine Laprade ñoo ko dirigé woon. xare boobu nag bi mu waree am te sëñ Mamour Anta Sali mënut a dëkk buur yi ci benn barab ci la jàll dem dëkk Poroxaan waaye bu woon na xare poise côté boobu muy Paté Badiane boobu du loolu du ñëw Poroxaan mu Mbàkke ba wala nekkoon waaye bi mu ñëwee nag mu jàll mu jàll Poroxaan kii maam Thierno wax nañ ne bis bi ñuy xare poise côté bi wax sox yi tàkk ci bis boobu la maam Cerno gane jamono moo tax mu bàyyi ci waa Daaru Muxti ay jeexintal muy xare bu mettee méttee méttee nga xam kon bu gàtt la fa la la nekkoon Poroxaan waaye am na lu mu fa liggéey waaye liggéey bi ëpp yi ngay dégg yëpp ñu koy wax ci soxna jaar li ci ëpp xuru Mbàkke la bu dee sàkket woowu mu téye woon ba fajar sàkket woowu xuru la bu dee teen boobu nga xam ne dañoo wax ne maam Mariama bu sa daa ñëwoon di root si moom ak maam Faati Isa Jóob baag bi dagg dugg ci biir wax nañ suñuy nopp booba ku tedd mi ngi ci ginnaaw maam Mariama mu ne leen bu fekkente ne man ngeen nëbb sama mbir dinaa leen génneel baag bi wax nañ ne ku tedd ki loxoom la jël teg ko teen bi ñu la ko yër ndox mi dafa yëkkati ko ba ba mu baraase ñu génnee baag bi mu delluwaat fa mu nekkoon. kon yooyu yëpp da ngay gis ne euh, maam bu sa ci moom rek la Seex Xaadim mënoon a jaar ngir ñëw jamono ndax sëñ Moussa Ka wax ne bu guddee mu dem diiwaan moom ku tedd ki. ba aras di waxtaani te loolu musta wane ne dara ne kii ma nekkal du nitu kese kenn mësu ko xam ci moom te bariyaa na ñoo xam ne buñ ta doon bu guddi gis ñu seen doom la fay indi nit ñi seen gémmiñ lay bàyyi ko wala mën nañ caa jóge sax tilbati wala le waaye nag yàlla dafay programme lu bare bare moo mor Cheikh Mamadou Fadel waxoon ne wàll yi ñu ngi ci kaw asamaan si fees fi dell mais jigéen bu mën a jaar ba ñëw jamono mu amatul waaye noonu la amee amul góor buñ mën a jaar ba ñëw yooyu it dafay nekk lu waaye daal jàmbaar joo xam ne daj na lu méttee métti ndax ma Mariama lu mat ay fukki kilomètre ak ñaar ci paan goo xam ne bu buñ ma ko yenoon man du ma ko yóbbu wax nañ bu ñëw bu ko tegee bu doongee naanee mu jeex day jëlaat xotti paan ngi dem waat kon coono boobu mu tar boobu moo tax na yàlla fayee ko lii mu am tey te keroog ba mu téye sàkket wa yàlla ji taw ba fajar wax nañ sëñ Mamoor keroog xaw naa tàng ba ne ko mbooleem doxi ndox yi la laal sa doom da nga am doom joo xam ne lu toll noonu dañ ko wuy si gëm ko te loolu ko ne xam ne ne histoire dem na dem na boo boo xoolee gis boo làmbee daj boo foo dem ci waa kër Seexul Xadim ña nga kon moom moo ko liggéey foofu incha allah. bëggoon nañu xam bi nga xamee ni sëñ bi mi ngi dem ci géej gi boobu soxna si fan la nekk ndax dafa mel ne dégg nañ sànq nga wax ni soxna si fanweeri at ak ñett kese moom la nekk ci kaw suuf ci li ñu xam. waaw fanweeri ñett xam nga yoonu géej gi bari na ci yoo xam ne Soxna Jaara feeñu na ci Serigne ndax booba wax nañ ne làqu na ndax wax na Serigne bi keroog bi mu ko yób ko yóbbuwoon Ndakaaru mu woor ba ngoon. war a dog kooram benn xale bu góor na ko néeg bu neexee jaamoo yàlla nga ne sëñ bi sonn bëgg a dog kooram yàkkamte dugg ci néeg bi tànk bi mu njëkk a teg ràbb da koo jam ba muy sar mu gis cat li moom sëñ dafa jaayante woon na du arrière kon faaw de indi beneen tànk bi mu indi beneen bi gën a ràbb jam ba sar sëriñ Tuubaa tarifa Baqara ak Aali Imraan ci nawaafil nee na maam Jaara moo ñëw na ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko gisagoo dara bi ngay ganee jamono damaa dégg nga ne ngaa bëgg a ràmm xarnu bi loolu it beneen la beneen nettali bu siiw boo xam ne wax na sëñ Abdoulaye sax nettali na ko mooy yeer moomu bañ ko ca defee wax nañ ne maam bu Bousso moo ñëw jàpp ci ay mbagam génne ko demal nga li àggali sa liggéey kon day mel ne tukki géej gi fekk ko ci waaye participé na ci yoon wi lu ba ci ci ci ci ci moom lu baree baree baree bari ci yoonu géej gi muy tartar yooyu yëpp ci nekk maam Mariam Bousso dafay da koy feeñu ñaaxaat ko waaye jamono yooyu fekk na moom mu dëkkaale ak borom ndax dund ko dafa gàtt waaye dund gi gu barkeel la ndax foo mën a àdduna fii Sénégal saa bu ñuy joxee exemple moom jëruñ ñuy dem ci soxna si benn yonent wala fenn maa Mariama Bousso rek la ñuy yem nga xam ne naan la baraba ma ngi nii ay sëtam a ngi nii doomam a ngi nii lim fi def xool gis làmb daj kon ay ma joxe ci exemple day gàtt lool nga xam ma jigéen ñi fi mën a seen tànk. ñu gis ni soxna Jaara dafa nekkoon ku yaatu ndax ëtt bi nga xam ne fi la nekkoon di ëtt Serigne Mamour Anta Sele dégg nañ si si ay nettali ñu wax ni Serigne bi dafa yoroon ñi nga xam ne ñooy ay dong di leen jàngal alxuraan waaye tamit yor geneen njaboot goo xam ne bokkul ak njabootu soxna jaara la waaye boole gi mu boole woon ak ñëpp yaatu googu lan la. waaw xam nga mënut a bañ a ñàkk ndax sëñ Maam Anna Sali ci jamonoom daaraam mooy université ci Sénégal wala bokk na ci yi ñu doon tuddee ginnaaw pir bi fi gën a rëy boo xam ne góor yàlla yi mag yi ngay dégg yépp ci yoonu Morit. laataa Seex Xaadim di woot sax dañoo nekkoon ci daara ji di jàng bi sëñ bi wootee ñu ñu ñu ñëw ñu jébbaluwaat benn waaye ñu ci bari ñoo sëñ bi ñoo bokkoon sax di jàngandoo xam-xam foofu ñu bare bare bari lu mel ne ay sëñ Afiya ak ay ku mel ne sëñ Maam Mor Jaar ak ay sëñ Daru Asan ak sëñ Mamadou Gay jëm mooy ñoo ñoo sëñ Tubaa ñoo bokkoon di jàng ci daara ji moo tax sax sëñ Tubaa wax nañ ne xasida gi njëkk a taalif way juróom woowu la ca waay muy ayaa man baxal ahkaami ayaa xawsa dilil ayaa xarmu yaa naamusu yaa xawsa siljili di ci wax këlitay sëñ Maam Oune Sali ni mu baree xam-xam ni mu nekk woon trésor xam-xam di ci wax yu baree baree bëri léegi nag bi way juróom demee nag mu kot yor daar yi kon mbooloo dana fa nekk mbooloo nag bu fa nekkee te maam bu sa bokk ci ñi toggal mbooloo mi bokk ci ñi leen di rooteel te booba jamono ndox euh, ndox manqué lu bari manqué kon daara ji sëñ maam Mor soxna maam Mariama dañ na ci ay coono yu tara tara tara tara tara tara tara waaye nag loolu doo ngay daanan ko bàyyi xel daanan yàkkamte mu aaye daanan sawar ci mbiram ndax yaatal gi ndax daara moom ku ne xam na ne daara yii nga xam rek képp ko am nga soxna soo xam ne yaatuwut te daara daaree internat da nga am jafe maanaam daara internat nga mën yor bu koo xam ne moo leen toog waaye képp ko daara cosaan yi nga yor faaw da am soxna su yaatu ndax donga moom ku ne xam na lam baaxoo waaw donga moom ku ne xam na lam baaxoo loolu ñuy jaar ci daa yi yaakaar na xam na moo tax na yaatu googu waykat boobu doon way maam Mariama bu sa ci naan daanaan woor da wax na ne ku yaat la woon ku wayaf la woon ku mënoon a togg ñam joxe la te hadis ba dafa xoon ne salu bi layli adehi moo taxam mooy na ngeen saxal guddi yi julli waaye na ngeen joxe ay ñam hadis boobu maa bu Busa daf koo jëfee bu baax a baax ndax guddi gi daf ko daan taxaw di la ba pare di woor ba pare di jël ñam di ko joxe kon mboolem luy baax rek wet goo ko ci làmb rek moom ma maa Mariama Busa jaare danga ko ci daj incha allah. ñu gis ni soxna jaara ku farlu la woon ci jaamu yàlla. ñu gis ni jamono ji fi mu toll moom sama sama classe gi xaw naa doy waar lool te ñu bari ci ñun soxna jaar mooy suñu suñu royukaay bëggoon nañ tamit nga dikk ci loolu ci farlu gi mu farlu woon ci ay koor ak ay naafi la ak yeneen xeeti jaamu yàlla ak taxawal ay julli yoo xam ni du sax julli farata farlu googu ci jaamu yàlla tamit bëggoon nañ nga waxtaan si. Ah, xam nga farlu mënut a weesu bi ñu ubbee kàddu gi dañoo wax ne laataa ñu ko muy dem ci kër sëñ Maam Ansali mokkal na alxuraan bind na ko ba xam-xam lu bari mu man ko ba man dalaa ilu xayraat waaye ndaw ñi da gis koo xam ne ak jaamu yàlla am day am maanaam day day xaar ne day am at bu muy xaar àgg ci dañ ko wax ne fii 40 ans jàpp ne moom waragul a def dara te moom xamul ne gis na ku judd tey faatu àdduna loo fi yàgg di yàgg am na ko fi gën yàgg loo fi yàgg yàgg am na ko la mag moo tax dee googu di bett nag moo tax diggante boobu ba ba ñuy faatu duñ fi taxawal dara ndax dañoo seen i at ca kanam la maanaam kenn ci ñoom jëpp ne yow da war a bokk ci ndaw ñiy faatu Mame Mariama Bousso nag loolu daf koo teel a li li tax nag mu am loolu nag mooy. fi mu ganee jamono la mooy dafa ganee jamono way juróom nekk ab jàngale kat di jàngal ay nit ba ni mokkal di jàngal nit xam-xam kon yaakaar naa nag kookee bu bu doomam ñëwee ngir mu man loolu dana yomb ndax li ci kaas bi bu dee dëgg li ci cafetière bi du ay nax ndax ci lañ ko xeree léppam dafa fekk waa këram cosaanam waxoon nañ ko léegi te cosaan woo xam ne dañ leen xamoon ci jàng alxuraan ak xam-xam moom mu màgg ci loolu nag ñu nàmputal ko ci loolu loolu nag feeñ ci moom moom la yóbbaale kër sëñ Mamoon Sali moo tax mu résultat yi soxna jaram boo xamee lim traversé mënta woon a mën a ñàkk mu ñëw foofu xëy na nag jigéen ñi ak ndaw ñi am jamono léegi ñu néew ñoo ci am sens boobu waaw ñu néew la seen wayjur mën a jàngal wala mën leen jox benn masala ñu gis ni soxna Jaara dafa nekkoon koo xam ne ku mënoon rafetal waaye jëmee ci ñi nga xam ni ñoom la bokkal jamono ñu gis ni jamono ji loolu dafa mel ni dafa dem ba dafa raaf ndax saa yu la waxee ni la kii nga bokkal jamono rek li ngay njëkk a xalaat mooy wujjee ak ñoom waaye soxna Jaara rafetal gi mu doon rafetal ci di leen jox ay parfum di leen may mat di leen may ay série dénk rafetal boobu tamit dafa nekk loo xam ne loo am solo la moo tax day baax loolu ñu waxtaan ci nga soññaale ci suñu mbokk soxna yi ngir ñu mën a rafetal comme ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal. xam nga Sénégal fii yenn saa gis koo xam ne naan la ñaareelam bi aaw bi moo aaw bi moo tak moo ko takkal ñaareel waaye aaw bu ko def bu nekk réccu nga ko maanaam foo ko mas a gis rek sëy ba day mujj maanaam aaw mun ne mujj jekk-jekk sëy ba tas wala ca biir moom mi njëkk woon ak baax dana mujj maanaam ci lu ñaaw lay mujj maanaam yi ma ci gis yëpp nag nga xam ne aaw bi maanaam moo sob sob la ba takkal borom këram mm, euh, deuxième femme dana mujj moom dana mujj xolo fiiraange dana ko jàpp loolu sax daloon na bu ñu demee ci histoire sunu maam Ibrahim xam nga dafa dund at yu baree baree bare bari Ibrahim amul doom léegi bi amul doom nag saarata na ko sama jibéer muy sama mbindaan mi te nga koo jël ndax yàlla may nañu waaye bi ko yàlla mayee rek mu ëmb am doom rek dafa commencé moom moom ci boppam di xat nga xam daal xolob firaa jàpp na ko ba dafa mujj sax dañ séparation dafa am ñoom ñaar dañoo mujj bàyyi kee fee jël kee yóbbu fële ki ginnaaw ab yonente la ay soxna ay loolu dal kon jigéen day am loo ne yàlla moo ko moo mooñaale ak kii maam Mariama na xëy na loolu jotu ko woon dal moo soxna Anta Ndiaye ndax rafetal gi soxna Anta Ndiaye la njëkk ndax moo naa ga soxna su baax su sell waaye du ko borom gërëm waaye da ci yemul ci wax ko waaye bi mu koy waxee dafa participer ci boo yoruloo ko ma jaay samay takkaay jox la ko moo tax maam Mariama it bi mu ñëwee ñoom joxuñu woon ci ak kujje ñoom xam nga li ñu doon nawlonte mooy doom ju baax li ñu doon nawlante mooy bu buñ fi jógee bàyyi fi way wu dul fay waaye Sénégal li problème li yàq mooy ni ñuy wujje ak li ñuy jàppe na mooy wujjee loolu moo nekkul ñaare biir kii dajale ay soxna moom amul mat gum war a tax mu dajale ay soxna moom ci boppam mooy ki nga xam ne mooy njëkk am problème ba war moom ci boppam sax am soxna da ko wàcc waaye nag xëy na bu am na xaalis wala dara tax na mu dajale ñaari soxna ba ñett nga xam ne problème yi am ci këram yëpp ci moom lay jël ñoom nag loolu daf leen dellu dalu leen ci benn sëñ Maam Anta Sali leen ci soxna Anta Ndiaye mi mu fekk soxna Anta Ndiaye it loolu dalu ko ci Maam Mariama bu sa jaarit la moo tax seenu nekkin yomb ba pare it yàlla def moom moo fa mujjee ñëw am fa njaboot ñoom ñu nangu it seen doom topp ke loolu bu doon ci jamono ji da ngay gis ne luy jafe lay doon maanaam bu doon jamono jii même bu amul daa gis na seeni doom daan fexe ba duñ li mais ma Serigne Touba yàlla dimbali na ko muy Mame bu sa kii feeñ ci moom muy Seexul Xadim ñi ko mag sëñ Mame Mor boo ko jëloon jël ñi mag muy sëñ maam Thierno ñoom ñëpp tan bokkoon nekk ci keppaaru soxna Mame Mariama te muy seen nawle di seen wujji ñoom ñëpp dañoo nangu seen doom topp Seexul Xadim ba ci soxna Fatou Issa sax jox na boppam Seexul Xadim loolu nag ci nekkin wu rafet ba pare ñu amoon basira am gis-gis ndax ñoom du nuun ay jaayil bokk nag ñun ci jamono yi mën ngaa gis xol ab jaayil waaye xolub ki yàlla koy def ñi ñoom nag yàlla moo leen din loolu loolu ba jot leen dal kujje daal dalu leen woon gii ñu xam ñun dalu leen woon soxna Jaara nekkoon koo xam ne tamit ku ku tabe la di joxe alalam ci ñim dëkkal di joxe alalam ci ñi nga xam ni mën nañ ni ñoo ay doomam ay doomi bàyyi lañu di joxe alalam ci ki nga xam ne moom mooy borom këram nga xam ne dencul dara mu jëm ëllëg tabe googu tamit nekk loo xam ne lu am solo la tey lu jar a fésal la waa xam nga dafa jaa jàngoon aaya bi wax ne masalu lazina yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a zanabila fi kulli zunbulatin min alhabba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim su fekkee dégg nañu aaya bi yàlla day wax ne su suuf si tooyee nga jël wenn pepp dugub nga suul ko mu sax pepp dugub am juróom-ñaari gub bu nekk am téeméeri pepp borom bi ne ni mu barkeelee wenn pepp dugub bi noonu lay barkeele sa alal bokk ak fay ga ëllëg maam Mariama nag loolu la teeloon mu xam moo tax ay gaalam mu ko daan jël jël ay takkaayam di ko jaay nga xam ne soow mi du manqué dara du manqué farlu ko nga xam ne warloon na sëñ maam Anta Sali fajar gu jot ak nu mu mën a def dana togg ab laax jox ko ko loolu moom daf ko defoon muy farata. am na ci yoon yoon woo xam ne dafa togg laax ba mu yegg maam Mariama maam Mariama bi mu ko toggee ba mu yegg sëñ maam Anta Sali war ci fas am na ñoo xam ne bu doon ñooma daa xam foo xam foo jëm da waaye ndékkali pare na avant tout loolu la xam foo jëm waaye ndékkali pare na su la wuyoo baax na su la wuyut nga am mat gu toll na nga dencaat ko fa la nga jox ko xale yi waaye bi mu gisee sëñ Maam Mor Anta Sali war ci fas benn yuuxu ko woowu ko wax ko dara daa topp ci ginnaaw fas wi ndànk yanu bool bi moom Maam Mariama fas wi di dem di dem ba mu gis dëkk ba mu dugg ba mu gis néeg ban ko dalal ba mu xam ko ba mu xam nga noppalu na mu fëgg ñu wuyu ko mu teg lax bi ndànk sëñ maam Anta Sali am ci mbég mu rëy rëy rëy loolu lu ñu war di jàngale la am ñoo xam ne luñ mën di woo seen borom kër dañuy taxaw ca digg ëtt ba woo bu ñëwee baax bu ñëwut baax yooyu yëpp nag euh, war nañ ko cee jàng daal bu baax a baax xam ne jigéen munta am lu gën a rëy boroom këram ndax dañuy wax ci hadis ne borom jigéen borom këram mu benn bakkan bi doon génnee dëtt benn pax bakkan bi di génnee deret mu sëgg ci naan lépp ba mu jeex tàkk taxul mu dab àqi borom këram ndax jigéen ki gën a rëy àq ci moom mooy boroom këram kon loolu faw jigéen xam loolu xam ne a rijaalu xawaamuuna jigéen ñi ñooy kilifa Euh, euh, góor yi ñooy kilifa euh, soxna yi loolu bi ñu xam ne loolu yàlla moo ko dogal fawuñu ñu di gëm ndax jigéen daa am lu man am lu mënut waaye góor it am na lu mën am lu mënut waaye fànn bu nekk day am koo xam ne fa lañ koy xaar tey boo ñëwoon ci lu mel ne wàllu médecine jigéen moo gën a ëpp yërmande moo dàq loolu ci moom lañ gën a xaar loolu waaye boo ñëwoon ci mel ne militaire bal yi di tàkk wala xare ñuy dëbbantey xëy foofu xaaruñ fa jigéen parce que loolu yàlla day am côté bu ne rek lam fay lam fay lii boo xoolee ñaari way dencante dañuy am doom doom ji xaw weex tuuti rek da gis ku ku góor ki li muy njëkk naxal sa doom ji mun moo fexe ba nelaw moom dégagé na ay responsabilité bu yàgg moom naxal sa doom ji rek ngay dégg nga xam ne kon yàlla la moo jël ween jox ko jigéen jigéen doom ji lu mu wex wex day ndax day du ci découragé benn mais fi noonu la góor bu téyee ab xale mu jooy tuuti rek jooy da ko delloo da ko delloo yaayam parce que ko xamu ko mënu ko téye mënu ko bu ko mu yàq ay yërëm sax am mën na ko sànniwaat ci lal ba waaye nag soxna la yàlla def ci yàlla jël def ko ci moom loolu kon yàlla xañ ne lii mais jox na leen jox na leen leneen la maam Mariama daal yàlla dimbal na ko mu teel am basira bu leer leer ci ni ñuy toppee borom këram moom teeloon na ko xam ba yu ci bëree bëri yàlla musal na ko ci ndimbal ak tawféex loolu ko suñu borom defal tax na mu nekkoon koo xam ni ku manoon joxe ñam la parce que dañuy wax ni li donga yi doon bari bari ci kër gi saa yoo xamee ni rek soxna si aaye na dañuy am mbégte lool ci aaye gi nga xam ne moom la aaye ndax mën a joxe gi mën a joxe ñam xam naa du ñàkk looy soññi soxna yi ci jamono ji ñu toll ndax sama classe gi nga xam ne moom toi et moi la ñuy dund moom yaakaar naa ni bu ñu royoon ci loolu du deme noonu. waaw xam nga joxe ñam dama ciy joxe misaal bu yàgg bu dama ci joxe misaal lu baree bari da gis ñaari jigéen nekk fii ci génn kër ñoom ñaar ñëpp nga jox leen dépasse bu juróomi téeméer nga leen jox ñoom ñaar. kee nga ci kër gee kee nga ci kër gee mais am na ceebu jën boo xam ne boo ko lekkee saa yi fa jaaree ci buntu kër ga sa xel dem ceebu jën nga ndax neex gum neex waaye am na ceebu jën boo xam ne boo ko lekkee pitikoolaak soccoog naan ataayaag lu nekk ndax naqari gum naqari xam nga fu ñu mënantee mooy pas-pas bi ñu am ci waañ bi ak xër gi ni xër di xalaat ne man bu ma yàq gan war na fee ñëw nga xam ne ki nga jox juróomi téeméer bu yoraatoon beneen juróomi ko ciy pourtant ñoom ñaan ñëpp nag dépassé juróomi téeméer ngi leen di jox kon foofu la ñu foofu la ñu wuute moo tax waaykat bi ñu soxna jaar mosaan aaye ci xar kanamu donga yi da ci xam ne am nañ mbégte mu rëy ci neex gi ci bari gi ci doy gi ci fànn yëpp kon jigéen ñi faaw ñu xam ne togg ñam joxe dafa baax lool ndax bul xool ci jamono ji ngay joxe ñam wi da xool jamono ji moo réparé mën naa am ñu ñëw fe bari na jeeg joo xam ne bu nu aayee xaree kontaan lu leen ci kër gi maanaam ay gi lañ koy sóor maanaam bu nu aayee rek xar yi dañuy kontaan ndax li ñuy wetti mooy bari kenn du lekk loolu kuñ koy def seen bopp rek lañ koy def yooyu yëpp dafa jaar di sóor di éviter xam ne togg ñam wu baax wu neex wu jaar yoon ba pare joxe ko ci xol bu tàlli ci kanam gu gu féex day tax nga am barke yu baree baree baree baree baree ndax loolu addis yu baree bari dañoo wàcc dañoo wàcc ci ku jël tibu ñam jox ko jaamu yàlla dañoo wax ne moo gën tabax téeméeri juma ci wax nañ nag ko def ci jumaa lu toll ne tàggum picc bi gën a tuuti yàlla war na la na kon soxna yi faw ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne togg waañ mett na tàng na ba pare jafe na nga génte par teg loo xam ne kenn lekk ko loolu sax sa boo xel nangu ko daal gàcce la kon soxna yooyu faaw nga soññi leen tamit ci roy gi ñu war a roy soxna jaar ndax dafa mel ne loolu rek doyut faaw nga soññi leen bu baax a baax ci roy gi nga xam ne war nañ ko roy soxna jaara surtout fii jamono ji toll waaw soxna yi moom am nañ problème roy soxna jaaram am nañ problème ndax yi yi leen gàllankoor moo bari seen problème bopp dooy leen sëkk temps amuñu ko da ngay gis soxna soo xam si ne ngir roy soxna jaar ndax moom diggante bi muy togg dix minutes bu nekk dana def ñetti vocal dix bu nekk dana def ñetti vocal dugg ci groupe bi maa ngi nuyu ki ci bunt bi ba pare mu ngi waajal nattum ngoon ba. yaa ngi ne mi ngi waajal nattum ngoon ba ak yeneen yu baree baree baree bare yu leen di traversé yoo xam ne mënuñu koo boole kër gi ñu ci nekk normal mënut a nekk. maam dañ ñoo coloniser ci ci ci ci technologie bi dañ ñu cee coloniser ñun tey ku si ku sa connexion jeex rek da mel ne malaat bu war a jël médicament maanaam benn comprimé mu naan ko donte benn téeméer nga yor sax nga di ko jëndee sax be euh, paas boo xam ne da nga mën dugg ci internet bi moo lay gënal nga jël téeméer bi le ak natt yéeni xaar mu borom leget bi nga xam ne cër bi ñu ko jox joxuñu ko seen euh, seen borom kër yooyu yëpp nag day tax soxna yi am ay jafe euh, te ñoom amoon nañ chance boo xam ne yooyu yëpp daal gaaru le jaar daal képp koo xam ne yaa ngi sëy jël sa bët teg ko ci Maam bu sa laa mooy da ngay nangoo da ngay pare pour di dund lu naqari ngir say doom pare di jaamu sa borom kër xam na yàllaal la ko nattoo xam na it say day neex di naqari xam na it bu naqari ñëwee war na ma mën a góor góorlu ba jàll daa am benn dof bu ñuy wax fàllu fàllu foo ko fekk day jeex boo ne ko fàllu looy jeex mu ne man li may jeex xam naa du fee ndax sama yaay koo ci loolu nag daa nekk làkk wu rëy aw ceex la fàllu di wax dañuy wax ne bépp doom boo gis muy dox muy góor muy jigéen mu am jafe-jafe àdduna yaayam mën na laa wax kañ la ko dal ndax jigéen dana tax a wax borom këram loo xam ne billaahi illisi yaayam mi ko su ko jur ñi mu ko wax te boo ko dóoree bu mbooloo mi ñëwee moo la ëppi jooy moo la ëppi waat ba pare sosal la loo xam ne mënu faa nekk di miim moo tax nag euh, jafe-jafe di bari trop lii dal lii am ci néegu sëy yi day feeñ ci doom yi ndax maam Serapha daa wax ne ku yëg joto sa yaay moo jàpp say tànk kon yaay dafa am rôle bu am solo bu muy suyee ci doomam ji war a feeñ ndax dañuy wax ne jigéen su tolleeb diggante wala mu ëmb ba wasin ba am doom doom jooju bu nàmpee merom baayam maanaam bu fekkee dégg nga li mu bëgg a maanaam bu xasee ba am doom jox ne mi ngi nàmp mu maanaam ci diggante bi mu fexe ba maanaam mu joteeg baay ba baayam mer mu kon ne di nàmpal doom ji doom ji dañuy wax lu mu am ci àdduna daa fekk yàlla bind ko ca lawul mahfuus waaye yaayam defalutu ko dara ci kaw suuf te xool loolu léegi ni jafe góor ñi ne dañoo gaaw fuñi fuñi day góor goo xam ne këram du ree day mel ne al day mel ne jaani saamaan di fuftandiku mbedd mi bu génnee mooy animation bi soxna si la yàlla booleen nga xam ne yaay ndeyam yaay bàyyi mu bàyyi lépp ñëw nga war a nekk sa premier partenaire waaye kër gi nga mel ne jaani saamaan di fuftandiku mel ne almaa doo ree say bien di ci xam dara moo tax nag jafe-jafe yi du ci jigéen ñi rek moo tax couple yi di am ay jafe-jafe yu baree baree baree bare euh, dañ koy nekk loo xam koy dañ koy partagé muy ñaari way dencante yi kenn ku nekk dafa xamul lim lim lim war a taxaw ci soxnaam soxna si xamul li mu war a taxaw ci borom këram moo tax na jafe-jafe yi di am moo tax soxna yi faaw dañu am ay jafe-jafe moo tax di fasul bari bari trop ci jamono ji waxtaan yi am na solo lool sama papa si mu war njaawee dafa mel ne waxtu wi dafa xaw a si kon dañ lay bàyyi nga tàggoo ak mbokk yi waaw di la sant baax di la gërëm suñu doom nga yàgg nañu trop wax dëgg yàlla ñu xam la ci lu baax te ci liggéey Serigne Touba ji lañ xamee muy daare si Fass nga nekk jëwriñi soxna yi moo tax it ba ma ko woo wax ma ko rek dama ne la waxtu bi am man am ma jafe-jafe boobu ndax nit ki ne koo xamu nam lay def rek nam ko def moom moo tax di sant bu baax mbokk yi nga ñooñ ne ñooñu dalal fii wax dëgg yàlla ci am nañ daal kontaante bu baax a baax a baax di wax ne yàlla na ko yàlla sàmm barab bi aar ko ba fépp fu ñuy dégg télé bu mag yàlla neen ko yàlla defal ci dara ji asan Darou Assane barki sëñ Bakki soxna Lo wasalaamaaleykum tabal huda kon ñu ngi am kontante bu baax a baax di la jaajëfal sama papa Serigne Mor Ndiaye di wax ni am nañ mbégte ak kontante bu baax a baax ci teew gi ndax xam nañ ni jamono ci xat na lool waaye biñ la ko waxee bàyyi nga lépp li nga jàppoon ñëw wuy si kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax nga dajee si ak ngërëmal Serigne Touba ñu ngi lay sant di sant sama caméraman yi ba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal jaww bëgg ceeb di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi doon seetaan ñëpp rek di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ki suñu beneen plateau waajal màggalu poroxaan gi jërë ngeen jëf